daanelee Fatma. acca mu ranta man euh, fi may fi may ñëwaatee ak moom mooy gannaaw boobu mu daanee kii xam moom mooy Eumeu Sène ba tey coow li du doon woyle ñu gisee da nga daan ki nga xam te ne moom mooy Eumeu Sène affaire commencé amaat beneen tournure Tapha kon euh, ni ko Modou Anta waxee benn combat jànq moom moo ko fi desee muy combat am ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo ak booy ndaw yi nga xamante ni du ma ne sax booy ndaw ay rakkam yi nga xamante ni. grand contre petit bi ak ñi nga xamante ni ñoom la bokkaloon génération bëre ak ñoom ak revanche loolu instant bi moom moo nekk ci kanamu Tafatine tafaatin jël nañ ñoo xamante ni peut-être ay fans tafaatin lañ ñu ne combat royal lañuy la ñuy xaar Lac de ñu laaj ko diggante ak Tafatine mu ne damay ñaan ci njekk ñu ne Balla Gaye 2 ak tafaatin mais loolu nan nga ko gisee depuis ba nga bëree ba daan euh, coow loolu moom. waaw mais dañuy santaat yàlla rek xam ne ci sport lañ nekk lam lañ tey ba ñuy départ en deux cinq deux mille six bëri nañu lool suñuy moroom ëpp ñu leen doole mënuñu leen dogale suñu borom la ñi arte seen carrière ñi continuer ñi ci des nag bariwut dañ ciy lim cinq wala six actuellement mooy ñi fi nekk nii di bëre suñu biir comprendre nga mm. suma ay adversaire lañ ñoom xam nañu man xam naa liggéey nañu lu tax ñu bëre ak Tapha Tine dafa liggéey lu tax mu bëre ak ñoom li ma la mën a xamal daal mooy man làmb ji maa ci ëpp ay adversaire tafaatin Tapha Tine titre roi des arènes lay bëree beneen adversaire lay bëree loolu yàlla suñu boroom la neex tey mën naa bëgg lee yàlla ne bu fi amee bu boobaay damay dem seeti leneen du dégg. ah mais bien sûr bu ma sañoon balaa ngoon a jot ñu organiser benn làmb fii teg ko bi ma daan leen yóbbul ko Bawol man loolu laa bëgg de. mais dégg na yeneen adversaire mooy mooy li ma la wax dama la lañ man ak ñoom mën nañoo bëgg lale yàlla bu ne du am it <laughs> lan lañ ci mën dañu xam ne doomu aadama yàlla dafa am lu mu ko deseneel mu war ci traverse war cee jaar. Mm. voilà lu mu ne day am ala kulli haal day am man foofu laa teg sumay mbir quoi. mais lan ci ndax gis nañ tamit tafaatin moo. bañ a focus bañ a dégg déglu ma dama lay wax. Mm-hmm. ñii fi nekk ñëpp kan ah. moo ma ci jékk a bëre titre roi des laa wax du ah. kenn ci ñoom. kenn ba ma koy bëree en 2013 ñoom ñii ñëpp kenn xeeñu ko ci boo koy jéggi laa la wax kon man loolu lu may teel la. Ah. am ñaan naa yàlla bu ma ko tàntewaatee bii. ma yóbbul ko waa Bawol. kon donc titre roi des arènes ak ñëpp laay xaar ñëpp ñëpp. adversaire yi adversaire yi bëri nañ. adversaire yi bëri nañ bëri nañ maa toog di liggéey pour ñëpp waaw. dañ koy def benn ak benn rek làmb ji bi mu jeexee tamit mhm. dégg nañ fi euh, ñu ci mel ni euh, yenn journaliste ak yenn promoteurs yi mhm. ñuy wax sa combat ak Balla Gaye 2 ndax Tapha jot na promoteur déggante nag estafam pour ko démarrer su combat ak Balla Gaye 2. non ak ñeneen ñu dul moom sax yeneen i mbër comme mbëri yi bëri nañ moom ci adversaire yi lañ bokk mais bi ma bëre ba léegi chaque jour ñu ne la kii wala kale. mais tam xam nga <laughs> staff bu yaatu boo xam ne nii xam nga du du du du kenn rek naan lii mooy am mu am. Mm. dañuy waxtaan suñu biir xam nga boo déggoo ci benn affaire. Mm. booy lutteurs yi nga gis ñuy entraîné. Mm-hmm. ñoom lay àndal. ay quatre heures di matin cinq heures du matin di ànd ak ñoom ci face à face ak lamb ji. bu cooki amee balaa kenn dal sama kaw ñu dal sa kaw kon ñooñu dañoo am cër ci man quoi ak ñeneen ak ñeneen mais daal li ma la mën a xamal mooy hmm. ñun li ñu gën a laa bu ñu sañoon dem dem dem bëre ji titre roi de Sarène mais yàlla dafa am nu muy dogalee hmm. adversaires yi bëri nañ ku ñu ci yàlla set ñu dem bëre ak yow ah. voilà loolu la quoi mais mais combat la ci adversaire yi la bokk. bëri nañu en 2013 tuwaat titre roi de Sarr mu mm. ñàkk ko. voilà ci adversaire yi la bokk ak keneen ak keneen ah. Mm. ci adversaire yi la bokk. Mhm, ci adversaire yi la. Ah, ah. Mhm. ci adversaire yi la kay. peut être ci adversaire yi la. ah Ama Baldé ci advers ci adversaire yi la moo tax man na adversaire yi dañoo bëri. mais ah, mais mais Alioune Seye ak Modou Anta mi bëri barki dem sax ci adversaire lañ bokk. de leen leen ci boole. Alioune Seye de kenn da koo mën a bañ Baye Fall bopp. ah yow tam ah. sama waay la maa koy félicité. voilà mm-hmm. macha allah mais dañu gis ci côté communication tafaatin Tine du ignorer quoi ignorer mooy comme buñ la laajee. bu la laajee guy gi doone daxaar gi da ngay samp ci digg bi loolu aussi tamit lan moo la ko may parce que tamit yenn VIP yi duñ toog sax bay sibile naan alin Seye 2 te seen morom la yéen a duggandoo si làmb. non dama xam ne nit ku baax la rek. dafa ñàkk kii ñaan loolu moom ñëpp a ko koy kiyal man sa gamu reefan day ñëw suma kër wallahi asim lu mu xat-xat doonte deux minutes la fay ñëw day ñëw suma kër doonte benn mbuusu ndox wala boisson mu naan ko fa après dem mhm. kon kooku nit ku baax la quoi. ma koy féliciter di ko ñaanal aussi li ci kanamam yëpp leer ci adversaire yi la champion la. bu mag a mag a mag na ko gaa yëpp bàyyi xel ku mun a bëre la aussi. Mm-hmm. voilà comme man duma ma ignorer kenn. macha allah parce que ñun bañ fiy tolli suñuy grand lañ fekkoon. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñu may ñu sens ba léegi ñeen ñaay fii ku ci mel ni ama seen mii mu bëreel barki dem. Mm-hmm. ba léegi mu ngi di defanteeg ñun. te benn xale mënu ko nag. xale bu ci ñamanteeg moom di nga xam ne grand bu sap sap la. <laughs> voilà lam la lam ju neex. parce que ay adversaire de taille lañ. bëre bu neex a fay feeñ. Ah, voilà noonu la demee quoi te ah. xam nga. waaw